kooku janaa bi la janaa bi nabi kooku il est de Arsenal Arsenal la Arsenal kooku il est parti numéro 2 rakk ci marle moom réparé deux mi ngi noonu woykat bi yu neex yi mën a woy mën a bàkku day woy di bàkku de réparé nee na ngeen dem ci taarife Serigne Saliou bi répa noonu numéro deux champion bi ndaanaan bi kii kan la waaye nag daa mel ni ñii waa école de lutte Balla Gaye la waa école de lutte Balla Gaye nag bu ngeen leen déggee xam ne tey yuusooy bëre ndax fils de Balla ngi noonu seexab mooy bëre loo Karim Lamine Gola numéro de mbër géwél ah gis naa leen fii ñoo ngi nii taxaw bagage yi jóge waalo yi jóge géejawaay <laughs> yan bu diis ñeen ñooy école de lutte Balla ñoo ngi noonu taxaw président Gora ay ca réparé de ngi di dóor ay góor droite mbokkam yaayam marle nee xeex la andi de tey xeex duma ah en tout cas bu xeexul day bu xeexul de balaa daan wax lu set waa école de lutte Balla Gaye nag gis nga leen tey teel na ñoo ñëw adversaire ñëwagut ah sëñ Mor a ngeew ah sëñ Mor a ngi noonu sëñ Mor Youssou Ndour la andi cey sëriñ Mor borom géntali mercredi ma ngay reede yan bu diis cey sëriñ Mor borom làmb ci borom football ay sëñ Mor waay <laughs> réparé numéro 2 gàkku numéro 2 ngi noonu yaakaar naan mi ngi géej mi ngi géejawaay Youssou Ndour wàcc na mbokk yi takk ay veeram watu ba pare def tentam ànd ak Fils de Balla ànd waa géejawaay Balla Gaye baa ngi noonu Youssou Ndour mbokk yi rakku Balla Gaye numéro 2 baa ngi nii Youssou Mansour kaay kaay kaay. ngi noonu. Youssou Ndour ngi noonu takk ay veeram yor béjjënu koobaam takk morso bu ci loxo bi ah macha allah liggéey na de Youssou ngi noonu. Fils Balla ngi noonu. Youssou ngi noonu. yamal fii rek ñu def ko benn yoon jëlaale moor Youssou day ñaan daa apël ñaan lay def naayib ji Youssou ngi noonu cey lamb tension bi tel naa bari de ko tension bi tel naa bari de bi daal tel naa bari mi noonu sëgg am lu muy def bi Mor Kanka ci oto bi moo war a wàcc borom Kélémalé ginnaaw ba Youssou Ndour wàccee Mor de oto bagage la andi oto bagage oto bagage la andi dugg ci ci oto boobu la yàgg a dugg ma Mor booy puye ngi noonu Youssou gaa yaa ngi noonu ci yàlla laay gis naa ci làmb lu ma metti quoi ñooñu presse bi la ñu ngi dugg ci caw saara ngi noonu mbokk yi Mor Kang Kang ñooñu ñooy waaw ñooñu waa kër Mor Kang ñooy dugg noonu waa kër Mor Kang Kang ay noonu waa Kër Mor Kanka ñoo dugg si noonu Mor kan Mor duggagul ana Mor kee du Mor kee Ama bu Yaraax kee mbokk yi Mor Kanka ngay perkaal perkaal nag am na lu muy toj la ci làmb perkaal nag am na lu muy toj la ñenn ñi nee day lijjanti làmb ji ñeneen ñi nee nañ ku ko yor jekkul waaye lool lépp nag xamuñu lu ko waral ñun wax rek lañ xam affaire u xar fa xuufa xamuñu ci dara waaye doomu Bawol bi daal la ngi ni dugg si ñu boot ko cawee saara ko boot trompoor a perkaal ba ak soq mu andi fi mbooloo bu bëree bëree bëree bëri mbooloo bu bëree bëree bëree bëree bëri la fi nii moom Mor Kang noonu mbooloo bu bëree bëree bëri la na wàcc na sotti koona soow ma mbokk moor sotti koona soow ma eh caw laay laay nee nan ko na dal nee nan ko na dal nee ko na dal sotti koona soow mbooloo bu bëree bëree bëree bëri la fi andi Bébé Diène ni defoon stade bi Mor Kankang def na ko laa ilaha illallah. xale ya ma bind Bébé Diène. wallaay eh, sama xel dem na ci Bébé Diène ni mu demee. stade na bi lu mu attan. waaye est-ce que lamb ji daa mel ni a ñibbi Colobane Gueule Tapée Fass Médina. jege na ko a ñibbi foofu. cey yàlla cey xale yi li duy. 11 combats 11 victoires macha allah bi. Youssou Ndour dugg si na doomu Baye Balla bi. ndaanaan bi mbër mu yaru mi te ci biir géew moom tamit cey ñaari mbër yi rakku Balla Gaye bi ak rakku Tapha Tine bi cey bii combat Youssou Ndour nee ma bawal yabuñu yabuñu école de lutte Balla Gaye mooy pour nee lan la jógle nee na leen lan la da duma cey yàlla moo rangi noonu di def ay xarfa ko Alioune Sarr sotti na moom soow cey moor xale